mbokk yi ñuy teewlu ci seen site numéro 1 de l' actualité sur mobile Sénégo ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd geeg topp gi dellu siwaat ak yéen ci jotaay waxtaan boo xamante ni entretien exclusive la nu sekku ko ak ancienne présidente conseil économique social environnemental nekkoon fi ministre nekkoon fi premier ministre madame aminat Touré moo nu dalal ñu fas yéene sëkk ak moom jotaay waxtaan wu soxal actualité bi waaye tamit wéetuma ci jotaay waxtaan wi ndax dina am parti goo xam ne suñu jigéen suñu consoeur nekk collègue ca Sénégal muy ayda moom mooy ñëw ak moom lu jëm ci mbirum jigéen yi ak 8 mars bi. donc pour ñu dugg ci question d' actualité rek madame aminat Touré ñu ngi lay jaajëfal ci. Euh, accordel gi ñu accordel jotaay waxtaan wi di la bàyyi ak internet Sénégal rek di la dalal ci entretien bi. waaw maa ngi lay euh, fay bu baax di nuyu aussi ñi nga xam ne ñoo leen di suivre. Mhm. ci Sénégal di leen encourager aussi ci liggéey bi ngeen di def ci. Mhm. tasaare xabaar yi ci mhm. Sénégal ak ci àddina bi. ok kon fi ñuy duggee ci waxtaan wi rek yàlla dogal na jamono yi nu génn ñu ngi woon ci ay joute électorale mu di élection locale yi euh, yàlla dogal euh, ñu gis ni coalition bii ñuy wax coalition Yewwi Askan Wi am lu mu ci def ci ay jéego ci loo xamante ni yéen fa ngeen bokk muy coalition Benno Bokk Yaakaar yi séentu woon ngeen am fa ndam waaye yàlla jox leen ko ci ay villes yu mag alors tey boo doon def bilan ak njàngat ci local yooyu ñu génn tey lan lañ mën a jàpp. waaw li ma ciy njëkk a jàpp mooy euh, élection yoo xam ne def naa ne amul werante euh, te lool it euh, mooy li ëpp solo ci démocratie. Euh, mooy nit ñi jogante dem askan wi tànn ñu pare amul benn werante euh, donc fichier bi nga xam ne moo dajale ñuy wote dem naa ne ñëpp d'accord nañ ne fichier bu baax la euh, kon loolu mooy premier jàngat bi ma ci am. jàngat bi mooy bu nu xoolee ni mbir yi demee démocratie aussi foog ñu xam ne amul parti boo xam ne mën ngaa gagner tund yëpp amul fenn. du France du Amérique du feneen. Euh, am na ci bërëb yoo xam ne xëy na bëggoon nañ koo gañe waaye gañe ko. lu mel ni Dakar kooku it dañ koy nangu. waaye bu fekkee ne rek dañuy wax ci li nga xam ne moo am boo jëlee cinq cent cinquante et un collectivités euh, territoriales euh, maanaam li ci ëpp ñoo ko gañe bu ñu xoolee aussi ci ay voix daanaka voilà suñu ay voix sori na lool lool yu yewi Euh, loolu mooy li am yeew yi sax def naa ne ñoom euh, werante wuñu loolu euh, waaye nag dina nu toogaat suñu biir waxtaan ndax am na ci béréb yoo xam ne xam ne xëy na jotuñoo gañe ndax dañoo tasaaroo surtout kaawu Dakar lu mel ni nga xamante ni yéen bi ngeen jëlee nguur gi en 2012 ba waxtu wi mënu leen fexe am capital bi muy Ndakaaru ndax loolu <laughs> tamit du am lu muy gàllankoor wala am lu muy wàññi ci seen maanaam ay ambition ak seen bëgg-bëgg ci réew mi ah déedéet bul bul wax loolu ndax 2019 ñoo ñoo gagné Dakar quand même dem élection présidentielle yi ñu génn élection législative yi nga xam ne 2017 la woon it ñoo ko gagné xëy na ci ay élection mm, municipale municipale voilà municipale yu 2014 waaw boobu gagné woon mm-hmm. euh, euh, waaw mais dañu koy nangu xam ne démocratie euh, tëdde noonu mm-hmm. waaye aussi ñu wax ci béréb yi nga xam ne gagné nañ ko te booy seet ñoo ëpp loolu it mooy li am def naa ne kenn werante wu ko Euh, mais booy seet élection yi sax daanaka jéggi nañ ko ba dem euh, ñun ci suñu bopp am na ci waxtaan woo xam ne waxtaanu biir lay doon ndax bëri na béréb yoo xam ne dañu féewaloo woon maanaam tey jii nii euh, ñàkk bi dafa am division liñ naan féewaloo ndax gis nañ ay liste parallèle am ñoo xam ne ci yéen lañ bokkoon waaye dañoo demal seen bopp waaye yooyu yëpp xam nga ci ndax xel nangul woon ngeen booloo doon benn ngeen bëggandoo yëf yi mën a am li ngeen bëgg waaw waaw bien sûr mais loolu la ñuy toog waxtaan ndaxte boo jëlee bërëb bu mel ni Rufisque daanaka juróomi juróomi liste la ñu fa amoon. waaw xam nga pour nga gagné nag bu say euh, voix euh, voilà tase ci juróomi liste pour nga gagné day day day jafe yooyu yëpp ay waxtaan lay di doon ba nga xam ne élection yi ñu jëm dinañ fexe ba doo boole woowaat voilà euh, am unité ci sunu biir. bu ko defee béréb yu bari yoo xam ne yii. lu mel ni ville de Guédiawaye tamit kaw ville de Guédiawaye ndax amoo ci mbetteel li fa xew. man. voilà nit ñi tànn nañ seen maire euh, loolu la ñu ciy jàpp dañuy encourager suñu kam responsable ya fa nekk muy Aliou Sall ak euh, ñoom Lat Diop ñoom Néné Fatimata Tall ak ñoom ñëpp jàppoon ni sanction amul waaw mais xam nga waxtaan bi nag may bàyyi ba may bàyyi ma toon voilà euh, bu ko defee mu gën a neex mhm. foofa dañu leen di encourager bu ko defee ñoom it mhm. ñu voilà ngembuwaat ba dëgër rek mhm. demaat ci élection législative yi ci wàllu sanction man gisewu ma noonu man euh, li ma jàpp mooy encouragement sax moo war a am nit ki bu demee def kem tulaayu kàttanam après nag askan wi mooy dogal bu dogalee dafa war a voilà delluwaat ngembuwaat ni ma ko waxee euh, pour mën a gañewaat donc dañ leen war a gën a encourager plutôt que sanctionner leen ndax ki nga xam ne nag mooy dem ca làmb ja mooy mooy mooy daanu voilà ki nga xam ne nag aussi bokkul ci jogante du daanu donc loolu Euh, man noonu laa gisee ay élection gisewuma ko ci ay wàllu sanction au contraire ay encouragement lañ leen war a jox mhm. évidemment ñi gagné dañ leen di féliciter te ñoo ëpp nag ñoo ëpp foofu euh, voilà noonu lañ ko gisee mais am nañu yaakaar ne béréb yu bëri vraiment euh, yi nga xam ne perte nañ ko mhm. tudd nga Guédiawaye ma tudd Rufisque foofu bu ñu boole woote bu ñu boole dinañu mën a. dinañu mën a sud bi tamit ak Ziguinchor tamit. bokk ci waaw suñuy encouragé suñu responsable fa nekk. mais nee naa mënoo ànd gagné yëpp. kooku tey opposition bi nga xamante ni ñoom am na ñu ci confirmé wu ci am ndam ci ville yooyu ñu tudd léegi léegi ndax amu leen ay recommandation wala njàngat gu ngeen ciy def ndax gis nañ ni ñu bëri ñu ci falu dañuy wax ni danoo xaw a manqué expérience euh, politique ci li nga xamante ni moom lañ engagé wu. Ah waaw mais boobu seen responsabilité léegi bu comment dire euh, manaare ngi naar yaangoog ci wolof noonu lañ koy waxee euh, voilà askan wi dinañ seet li ñu mën boo laajee responsabilité bañ la jox la ko nag. ndax mën nañ séntu yéen ak ñoom ngeen booloo seen fédéré seen euh, force ndax dañuy faral di gis ni euh, kii am ndam ñaare ki mu gagné ñaare pour mu gunge ko ci euh, maanaam li nga xamante ni moom la am ndam dafay xaw a jafe tuuti cohabitation googu noonu bu ma jëlee kaawu li xew yàggul dara géej waaye diggante Aliou Sall ak Ahmed Aïdara waaw mais ki gagné moom mooy mooy ak démocratie lool la ki gañe kay moom jox nañ ko lenge mooy wane li mu mën dal di kile man bu ci kaaw Guédiawaye def naa ne euh, war nañoo gaaw installé bureau bu ko defee équipe bi nga xam ne moo gañee mu dal di commencé liggéey bi mm. ñi nga xam ne nag ñoo féetewoo opposition ah di saytu aussi euh, liggéey ba nga xam ne moo fa am mm-hmm. noonu lañ ko gisee ki nga xam ne moo gañe a ah, moom mooy liggéey nag wane li mu mën euh, ñi nga xam ne nag ñoom lañ daan bon ñoom opposition la ñu nekk euh, c'est ça loolay jeu démocratique amul gisuma ci benn difficulté donc war nañ installer bureau bi maire bi nga xam ne moo fa gagné moom it mu commencé liggéeyam man gisuma ci benn problème. ok ñu dugg ci wàllu législative yi. nga mhm. xamante ni moom moo nekk sunu kanam am ngeen ci li ngeen jóge am na lu nekk seen kanam tey. en tant que coalition bi nga xamante ni mën na noo wax ni ci li bilan yi wane yéen a jiitu naka ngeen di fas yéene confirmer seen euh, leadership googu noonu rawatina li ngeen jot a amagum ca biir assemblée nationale. waa xam nga fekk ne élection municipale yi élection législative la kon ñooy ëpp majorité assemblée nationale loolu képp kuy xayma rek euh, te di wax li am. Mm-hmm. loolu ngay gis. Mm-hmm. bon du ñu naagu du ñu xep kenn nag. Mm-hmm. parce que aussi ñun ñëpp ay nawle lañ. ñuy opposition wala majorité ay nawle lañu dañuy respecté wante. mais dinañ def suñu kéemtulaayu kàttan euh, ba majorité bi ñu amoon ñu majorité bu ni mel te naa ne. Euh, bu nu euh, saytoo liggéey bi nga xam ne suñu régime def na ko fi boobu ba tey depuis élection législative yi passé ci cinq ans yi vraiment war nañoo wane bilan boo xam ne bii euh, askan wi dinañ amaat kóolute ci ñun ba joxaat ñu majorité parce que nag aussi bilan bi mu ngi fi loolu noonu lañ koy nañ lañ nañ koy doxalee waaye avant loolu li ñuy njëkk a def mooy vraiment gën a renforcer suñu unité voilà parce que dañu féewala woon ci yenn bërëb xam nga benn ville nga am fa cinq listes mhm. loolu dina nu toogaat waxtaan ba ñëpp dal di àndaat loolu moom mooy liggéey bi ñuy njëkk a def mhm. euh, ndax nag ñoo bokk mbir mi élection locale nag moom dafa xaw a jafe ndax mbiru koñ la ku ne da ngay bëgg mhm. voilà mais législative moom national la euh, waxtaan wi euh, rafet naa njort ne dina dina dina gën a dina gën a yomb parce que ku ci nekk boo jiitalee responsabilité rek loolu dina mën a dina mën a sotti. ok kon la ci jaajëfal dug ak yow ci beneen question nga xamante ni lu président de la république Macky Sall annoncé woon la formation nouveau gouvernement nar a delloo si poste premier ministre alors yow euh, ci bi nga yëgee nii ca lañ nar a jëm. taxawal gouvernement bu bees rawatina delloo si poste premier ministre te yow it yàlla dogaloon na euh, nekkoon nga ko noo jàngatee xibaar googu noonu ak yow it naka nga gisee. Hmm. Eh, formation gouvernement bu bees boobee nga xamante ni ci lañ jëm ak ki nar a jiite maanaam gouvernement bi muy premier ministre bi. Hmm. waaw ban nekkoon naa premier ministre xam naa ne euh, post boo xam ne bi am na solo ci architecture gouvernementale euh, à un moment président ci ni mu defee évaluation am bëggoon xëy na yëf yi gaaw. Euh, supprimé woon na ko waaye indiwaat na ko donc man loolu dama koy lu parce que quand même euh, fa ma toogoon def naa ne amoon naa fa njëriñ dafa liggéey donc def naa ne poste boobu am na am na solo dina yombal liggéeyu président mm. surtout que léegi dafay jiite Union africaine euh, war a nekk ci béréb yu bëri wax ci turu Afrique ak yu demee noonu foog mu am premier ministre boo xam ne bi vraiment moo koy wutu bu fi nekkulee moo koy coordonnel équipe gouvernementale bi ak yu ni mel am na solo pour man affaire mbir mi ñëwaat Euh, gouvernement bi ñëw coobareem la parce que constitution euh, moom la dénk mu mën a tànn ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur am premier collaborateur am mooy premier ministre mm-hmm. collaborateur yi ci des ñooy ministre yi mm-hmm. euh, dañ ko koy bàyyee mu toog waxtaan nag boppam seet profil yi nga xam ne moom la jàpp ne ñoom la bëgg liggéeyal mm-hmm. képp koo xam ne kii liggéeyoon nga aussi te yàlla def xëy na bokkoo ci équipe bu bees bi Euh, man dama lay encourager parce que nag aussi Sénégal xam nga li fi jafe mooy ñu fal la euh, nga war a dem nit ñi dañu koy def voilà yóbbu ko niveau boo xam ne bii àggu fa. ndax ku nekk buñ ñu la nommé ministre rek jàppal ne chance bu mag a mag a mag a mag nga am dañ laa tànn ci sa ay naw biiri nawle. sas la euh, sas la. xëy na gënoo ci woon a ëpp jàng sax. waaye yow la yàlla defal teraanga jooju boo ci liggéeyee nag voilà ba liggéey woowu ñu ne la waaye léegi nag mën ngaa jox. liggéey bi keneen mu continuer euh, sant yàlla rek nga war a def waaw loolu it entourage bu ministre yi ak seen i njaboot nañ leen jàppale voilà parce que ñaare li ñuy gis mooy euh, voilà nit euh, du ma ne sax wàcc parce que du wàcc voilà nit vraiment delloo dossier yi comme ministre jàll ci leneen nit ñi dañu koy def tiis koo xam ne gii ci man aajuwu ko nañ ko jël rek comme voilà mission boo xam ne àgg na xëy na beneen mission yàlla dana la ko indil loolu def naa ne bu ñu amee esprit boobu euh, dina gën a yomb ci ñi am responsabilité euh, ba noppi jàll ci leneen ma noonu laa ko gisee parce que dund naa ko aussi voilà euh, entourage yi ak njaboot yi nañ ciy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci situation ndax doo ko dundaat ndax doo ko dundaat ndax maanaam dundoon nga ko ndax mën ah, nañ ah, seentu nga nga dundaat ko parce président Macky Sall ça fukki at ndax mën nañ séntu nga dundaat ko comme ah, loolu yàlla yàllaay dogal yu mel noonu ak président de la république dellu si ci biir euh, loolu loolu loolu ñaar ñaar ñaar a koy dogal yàlla d'abord mhm. ak ñaareel bi mooy président mooy seet ki nga xam ñi nga xam ne moo ñoom la bëgg a liggéeyal kooku moom rek ko xam moom moo gën a xam profil yi mais ci li ma jàpp profil yi nga xam ne moom la gën a soxla mhm. mooy ñi nga xam ne mën nañu mhm. xarañ nañu ci seen euh, li ñuy def engagé nañ politiquement parce que souvent damay dégg ñu naan technocrate ak politicien loolu moom bekkul fenn ndax ñun ñi lan mooy différence bi amul benn différence parce que ñi nekk ci politique ñun ñii ñëpp dañoo jàng ba am suñuy diplôme université mais am na ñu ci nekk nag nga baal ma it ñoom wàllu compétence souvent dañ leen koy reproché ah, waaw waaw mais mën ngaa jàng te voilà liggéey bañ lay dénk am na waaye am na ñoo xam ne dañuy gis mais ñëpp jàng nañu souvent dañuy wax ne sax poste yi ñu leen di jox est-ce que jàng nañ ko waaw ndax am nañ mérite bi ndax nañ compétence bi waaw ministre moom euh, mën ngaa nekk euh, ingénieur ñu jox la santé Euh, niveau de responsabilité la di nga da ngay am ay collaborateur ak ni ñu mel. Mm-hmm. mais di nga am un minimum de de compétence booy yor. da ngay engagé aussi. parce que man ministre bu la xasee ba nommé rek engagé nga politiquement. foog nga wàcc expliqué liggéey bi nga xam ne moom ngay def expliqué ko population yi. Mm-hmm. saafonteeg ña nga xam ne ñoo ne ci secteur ba yaa xam artisanat la wala éducation. Mm-hmm. déglu leen déglu seen i problème. déglu aussi seen i suggestion fexe ba ut ci pexe. loolu mooy équipe gouvernementale en fait. Ah, loolu nag euh, président moo moo koy tànnal boppam euh, comme match de football rek voilà ni ni entraîneur bi di amee équipe euh, noonu lay demee doon coobareem la dañ ko koy dañ ko koy bàyyee jàpp nga ni dina doon gouvernement bu néew wala dinañ ko yaatal mu doon gouvernement d'union nationale séntu ci opposition bi daal cee bokk xaw kooku nag moom awma ci benn réponse bu ma lay jox. loolu mhm. ci analyse du président su defee analyse am ba noppi. Mhm. seet ñi nga xam ak expérience gi am ak jaar jaar gi nga am tamit tey xëy na war nga mën a am njortu ci li nga xamante ne moo xam nga ne ci bopp ab président yombul <laughs> président bi moom moo xam euh, parce que équipe ak ki ngay liggéeyal mu ngi mel ni yow say collaborateur sa assistante euh, sa voilà sa manager sa gestionnaire euh, yow yaa leen di mën a tànnal sa bopp. kooku moom. amul keneen ku la ko mën a tànnal boo yore sa entreprise donc noonu la demee euh, dañ koy ñaanal yàlla mu am inspiration bu ko jox ay collaborateurs yoo xam ne yii fa mu bëgg a àggale mi dina fa loolu lañ ko mën a ñaanal Euh, noonu la noonu la tëddee. ok ñu gisoon ni eh, fan yu ñu génn eh, stade bu bees bi nga xamante ni stade du Sénégal loon mm-hmm. yàlla dogal ñu tuddee ko l' président de la République Abdoulaye Wade ñu gis ci nga defoon ci poste eh, bu am solo ci sa plateforme digitale yi rafetlu ko. magnifier vraiment acte bi nga xamante ni président Macky Sall posé na ko ñu daal koy tuddee Abdoulaye Wade d' abord yow ndax mën nga ci dikkaat. ak ki ñu ko tuddee muy Abdoulaye Wade. Euh, ndax dañ dañoo gis ni euh, retrouvaille dafa nar a am fileeg ci kanam diggante Macky ak famille libérale bi am na sax ñuy njortu ne est que nekkul ab deal moom moo lalu ci suuf ci jëf joojee mu def ay dóor la rek entre guillemets su ma ko mën a expliquer noonu. de leen rafetal man je que rafet njort dafa baax ci àddina. defe naa ne geste bi ni mu amee noonu rek lañ ko war a jàngatee mooy ab président bu toog euh, tuddee stade président bu fi jóge woon loolu aussi ci Afrique. def naa ñu bëri rafetlu nañ ko euh, parce que souvent voilà noonu lay demee te loolu dafa war a continuer moo tax ma saluer woon un beau geste républicain ndax après euh, voilà président Ablaye Wade président Sénégal la pendant pendant douze def fi ay réalisation voilà après dem am ku ko wuutu euh, loolu dafa am solo ni ñu tuddee woon aussi centre international de conférence bi président Abdou Diouf avant loolu aussi ñu tuddee woon aéroport bi Léopold Sédar Senghor ñi nga xam ne dañoo jiite ci voilà la plus. mais bi stade du Sénégal la tuddoon ñu dem ba ci biir ñu ne ñu stade Abdoulaye Wade te li ñëpp jàppoon mooy stade du Sénégal daanaka moom lañ doon wax. ba ci veille bi sax ministre des sports Matar Ba. dafa hmm. confirmé woon ni stade du Sénégal. waaye yàlla dogal euh, biñ ne 48 heures suma ma juumul ci veille bi ñu ne ñu Abdoulaye Wade leen koy tuddee xëy na est-ce que nekk looloo tamit moom moo xaw a. teeyal xelu nit ñi ba nag gisuma xel bu tey bu ci waram xel yu rafet rek a ci war a nekk euh, président Abdoulaye Wade mag la ñu tuddee ko lu toll ni stade muy un bijou gis nañu ko euh, lu rafet rek laa ci gis man gisuma ci gisuma ci leneen Euh, xam nga lépp mën naa mën nañ tu dee lu ne Sénégal ah. Mhm. mais spécificité bi tuddee ko président Abdoulaye Wade je pense que c'est c'est un beau geste. Mhm. Euh, voilà ancien président la ni ma ko waxee centre conférence abdu Diouf bi. loolu mhm. it euh, lu rafet la aéroport. Euh, même aéroport Blaise Blaise Diagne nga xam ne personnalité bu mag la ci histoire u Sénégal loolu li muy indi mooy tax génération yi di ñëw dans vingt ans trente ans euh, boo rombee xale bu romb ñu ne ko fii mooy stade Abdoulaye waat mu ne kan moo doon Abdoulaye Wade donc dina tax aussi nit ñi jàng seen histoire fàttaliku ñi nga xam ne ñoo ñu jiite woon euh, noonu lañ ko war a gisee ma ci beneen beneen beneen mbir ñuy rafet njort toujours te parce que parce que je pense que geste bu rafet la ok ku la xam-xam ne ku fonk éducation nga te jamono yi ñu génn xëy na solution mi ngi feeñ bokk na si sax ci li nga sàkku ci syndicat yi dese woon ngir mën a déggoo rek ñu retourner à la base ngir problème bi réglé wu solution daal di feeñ euh, alors li ñu yóbbee crise éducation bi man ci laay euh, bëgg ñëw mu mel ni ñun danoo baaxoo di yóbbu priorité feneen fu ci éducation bi te boo jëlee ab réew defe naa xam-xam moom moo ko tabax te euh, budget bi éducation bi place gi mu ci am defe naa ni beneen secteur amu ko ci ndax ñun sunu nguur yi danoo xaw a ñàkk fu laal euh, lii di éducation ba mu ñu yóbbee tey jii ni crise gi école sénégalaise nekkee waaw euh, il faut dire aussi que jéego yu bëri am na euh, commencé wul sax ci 2012 mhm. booy seet ren man bi may dugg école xëy na mhm. na c'est peut-être 10 pour cent 20 pour cent wu xale yi ñoo daan dem école tey nga dem ba presque 100 pour cent wu xale yi juddu di dugg école mhm. am ñu ci dem daara mais li ci ëpp Euh, école la ñuy la ñuy dem loolu jéego la commencé ko ci président Senghor président Abdou président Abdoulaye Wade président Macky Sall donc suñu éducation évolué na lu baree baree baree bare euh, ci jamono ji ñu toll am na ci lu ma tuddee ay révolution silencieuse yoo xam ne peut-être que waxtaanuñ ci mooy lan leeralal ko danaa la ko leeralal entrée en sixième bi ñu génn mhm. jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi loolu am na lu bëri lu mu firnde ci ci ni Sénégal avancé ci ni jigéen ñi aussi ñu dem ba euh, borom kër yi fu laal fay daal njaagu jigéen ñi parce que booy seet jigéen ñi mooy mooy genn wàllu population Sénégal euh, ren ji boo demee université faculté de médecine ñi nar a jot seen diplôme mu docteur jigéen ñee ci ëpp donc yooyu ay révolution yoo xam ne la euh, voilà yen du ngeen ko waxtaane yéen médias yi mais am na mm-hmm. ñu dem ba man bi may am baccalauréat benn université moo am Dakar moo doon université Cheikh Anta Diop boo xoolee euh, daanaka am nañu université yu bëri et puis 2012 aussi parc universitaire bi université yi dafa yokk lu bare bare bare bare euh, loolu it aussi lu ñuy saluer la mais xam nga boo fekkee ne da ngaa nekk dëkku dëkk woo xam ne ndaw ñi ci ëpp 70 pour cent u population yi boo jëlee 100 sénégalais 70 pour cent yi amuñu fanweeri at ak juróom donc pression wu éducation Euh, day am importance euh, gouvernement bi di ci def aussi jéego yu am solo mais bien sûr comme pays en voie de développement la ñu euh, toujours li ngay yor ci koom-koom ak li ngay am ci soxla voilà du méngoo dañuy ñaan yàlla bu ñu demee ba am suñu production pétrole bi nga xam ne moom la ñuy xaar incha allah ci wàll yooyu ñu mën cee def jéego yu yu yu yu gën a gaaw mm-hmm. mais am nañu progrès progression am nañu ci vraiment ay jéego li nga xam ne nag moom laa bëgg a euh, euh, woo suñu suñu suñu suñu suñu suñu mbokku enseignants yi mm-hmm. euh, seen liggéey ci réew mi liggéey wu ama am solo la ñoom ñoo ñu formé ñun ñi toog mm-hmm. voilà ñoo formé cadre yi fi nekk ñi nar a ñëw suba ñoom ñoo leen di formé te mm-hmm. réew ni nga ko waxee xam-xam a ko yor gis nañu réew yoo xam ne yor nañu or yor ñu jama mais demuñu fen ndax seen ressource humaine maanaam ñi nga xam ne ñoo war a liggéey réew mi bu ñu amul formation ba ca war réew ma du avancé kon ñoom seen seen seen seen importance ci suñu avenir u réew muy enseignants yi dafa am solo waaye dama leen di o aussi souvent ci euh, ñu nangu aussi di waxtaan ak état di waxtaan ak état ni ñu ko defee bon syndicat nag moom loolooy liggéeyam man ba ma nekkee ndaw aussi nekkoon naa syndicaliste jéem a fexe toujours voilà revendication yi ak yu ni mel moom c'est toujours légitime parce que enseignant it aussi liggéeyam li ma wax sànq am na solo waaye day am aussi lu réew di man ak lu réew dul man loolu foofu laa woote ci responsabilité bi nga xam ne bon vraiment état bi bi yoon def na ay effort yu rëy a rëy rëy buñ fàttale buñ fàtte ne ñu ngi jógee ci Covid bu yàggul presque deux ans yi yëpp boy seet koom-koom amul donc recette fiscale yi bariwul waaye malgré ça état nangu aussi def sacrifice yu mel noonu pour que ñu mën a am année scolaire boo xam ne voilà dinañ ko mun a sauver. Euh, loolu it euh, damay saluer aussi seen esprit responsabilité def naa ñoom ñëpp mujj nañoo d'accord. pour que grève boobu jeex ndax grève bi nag aussi baaxul ci xale yi baaxul ci réew mi aussi. Euh, loolu it ñu ci ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax. je pense ndax mën nañ ci njortu changement de système éducatif ndax dañuy faral di wax naan xam-xam gi nuy sàkku du xaw a méngoo ak suñuy réalité socio culturelle ndax yow njortu nga ni war nañ mën a dem vers euh, ñu soppi xëy na système bi nga xamante ni tey jii ni moom lañ hérité euh, Occident bi. waaw mais système baa ngi commencé soppeeku ndax ñu ngi am yu ci bëri léegi ay ay lycée technique. maintenant mm-hmm. loolu président Macky Sall moo ko moo baral mbir moomu sax booy seet. Mm-hmm. lycée technique yi nit ñi mën a dem aussi euh, am formation technique yoo xam ne ñoo loolu. la la la la la koom bi soxla mm. euh, yooyu it aussi euh, am na ci am na ci solo euh, mais njàng mi moom d'accord nañu ne war nañ ko jox importance bi te état aussi def na ci ni ma ko waxee jéego yu mel noonu mm-hmm. léegi ci wàllu syndicat nag moom xëy na war nañoo waxtaan di am ay conférence syndicale annuelle chaque année syndicat yëpp toog ak état ñu def le point bu ko defee moo xam année scolaire bi la wala système de santé bi ñu d'accord ci parce que boo xool dëkk bu mel ni Allemagne loolooy dooleem dëkk al boo xoolee Allemagne seen syndicat yi dañu nekk ci li socialiste yi doon wax participation responsable mooy dañuy toog xam ne ñun suñu intérêt la secteur bi dox moo xam secteur éducation la wala feneen lii mooy li nga xam ne jéego yi nga xam ne yow mi nga xam ne yaay état war nga ko def waaye ñun it ñi nga xam ne ñooy enseignant nangu ñoo def nangu noo nañ def jéego yi ensemble bu ko defee année bi commencé Euh, du am perturbation kon xëy na loolu ay xalaat yoo xam ne yii war nañ ko euh, jéem a xóotal euh, bu ko defee chaque année ñuy moo xam mois de juillet lay doon wala voilà ñu toog am des concertations discuter aussi ci pas seulement payooru enseignants yi parce que mais qualité de l'enseignement aussi am na solo wax nga ko révision des curricula mooy li ñuy jàngal xale yi ak yu ni mu doon conférence yu mag yoo xam ne yi Euh, moom la ñuy ubbee année bi bu ko defee ay incompréhension yi ñu teel koo régler euh, bu ko defee duñ toog ba mois de janvier février secteur bi arrêté ak yu mel noonu loolu daal ay xalaat la yoo xam ne yi euh, war nañ koo gëstu bu ko defee ñu am stabilité ci suñu secteur u éducation ndax nag sénégalais yi dañ ñu nawoon pour qualité de notre éducation loolu nag war nañ cee góorgóorlu Euh, ba loolu mën a mën a continuer. ok fi may euh, daanele muy question boo xam ne dafa soxal wàllu international bi te li fa xew rek war a am impact fii ci sunu sous-région bi li xew diggante Russie ak euh, Ukraine muy conflit russo-ukrainien bi alors yow lan moo ci sa appréciation. ko waaw man vraiment il faut que bombardement yi nga xam ne moom la ñuy bombardé xeetu xeet yooyu nga xam ne ñoo ne ci Ukraine ñu arrêté ko. waaw euh, Russie moo war a arrêté bombardement di rey ñoo xam ne ñi seen yoon nekkul ci géopolitique voilà boo gisee télé bi ay voilà euh, yaay yu yor seen doom yéeg ñoo xam ne xamuñu sax lan mooy géopolitique ak yu mel noonu te àddina quand même fi mu toll war na ñoo weesu ay ay guerre àddina fi mu toll ak xam-xamam ak sophistication am vraiment defoon nañ ne guerre war naa mën a jeex kon vraiment il faut que Russie arrêté loolu. voilà ñoom ñu toog waxtaan ndax jàppoo ni xaw na légitime géopolitiquement parlant ci côté wu euh, Vladimir Poutine mu mel ni am na tontu gu mu bëgg woon Occident bi ak rawatina kuréel googu di oto waaw mais loolu yëpp euh, aajuwul di bombarder ñoo xam ne seen yoon newu ci voilà mère de famille bi nga xam ne ma nga yore. ay doomam moo mënoon doon solution. mais toog waxtaan amul leneen. toog waxtaan def naa ne après deux ans presque trois ans de Covid. def naa ne doomu aadama yi tal nañ leneen lu dul guerre franchement euh, ku ci nekk yaa ngi seet nooy defaraate sa koom-koom donc man je pense que lii aussi Russie dina dem ba xam ne lii arrangé wu ko arrangé wu ko quel que soit nag raison yi tax euh, parce que xam nañ ne Ukraine moo dox diggante Russie ak OTAN euh, donc Ukraine Russie dañuy xëcc ci benn côté ndax benn parti bi nga xam ne moo fete est bi ñoom russe la ñuy làkk beneen partie bi di euh, di làkk ukrainien doon ay catholique ñee doon ay orthodoxe donc dëkk boo xam ne bii yàgg na am ay tolof tolof yu mel noonu te Ukraine ci boppam boo presque ay quatre cinq siècles ci Russie la bokkoon yooyu yëpp xam nañu ko waaye problème euh, du ci ay bombardement di ci rey ay doomu aadama euh, sanctions yi am nar a sonal aussi xeetu Russie dina leen sonal ndax ñu ngi leen coupé ci système bancaire beeg yu mel noonu ñun ñi nga xam ne dañ faa sori te amuñ dara loo xam ne lii lié nañu ak problème boobu mhm. ñu ngi ciy commencé souffrir ndax pétrole bi yokk na voilà te ñun ñëpp pétrole la ñuy utiliser donc vraiment indiwaat jàmm mhm. fexe ba Nations Unies parce que loolooy liggéeyam mhm. euh, def ay négociation ba jàmm ñëwaat voilà ba ñu waxtaanaat euh, parce que gànnaay daal def naa ne defoon naa ne voilà développement wu àddina humanité weesu na foo xam ne fii problème yi ay gànnaay koy réglé Euh, donc euh, vraiment loolu lañ ci mën a wax euh, regretter vraiment li am et bombardement yi mën a arrêter immédiatement après nit ñi commencé waxtaan voilà pour trouver une solution. ok ñu ñu ñu ñu jeexalee loo xamante ni dañ ko commencé seetlu ci réew mi mu di ay kàddu yi faral di jib rawatina léeg ci médias yi du jóge ci ay kilifa mu mel ni loolu dafay jur gàllankoor ci cohésion sociale bi nga xamante ni moom moo am ci réew mi. alors tey ndax amoo message wala. waaw loolu yooyu moom. bi ci mujj mooy bi xew ak imam gi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci communauté catholique bi ba mu waral seenu mer ñu sàkku ay jéggalu lu mel noonu yow. waaw lu jar moytu la yooyu jar moytu la def naa ne imam bi jéggalu na. Euh, mais na ñuy bàyyi xel ne Sénégal benn bopp la. suñu premier président de la république ab chrétien la woon ab catholique la woon Léopold Sédar Senghor. ba muy wut am na koo xam ne kii candidat la woon aussi ñu naan ko Lamine Gueye ab jullit la woon waaye euh, sëñ Fallou mi nga xam ne moo jiite woon Mouridia mhm. Senghor mi nga xam ne mooy catholique mi moom la jàppale woon jàppalewul woon euh, Lamine Gueye kon loolu daf dañoo yàgg réew doon dafa yàgg doon réew moo xam ne bii tolérance daf fi am euh, famille yu bëri ñii ay catholique la ñuy doon ñii ay ay ay ñu ngi sëyante suñu biir àddina mhm. yëpp naw nañu ci nag àddina yëpp bon tarxiis ak erreur dinañ am. xanaa dañuy ñaan église bi ñu accepter ses ses excuses. Mm-hmm. Euh, voilà mais ñun ñëpp ñu bàyyi xel rek euh, ci ni ñuy waxee euh, yenn saa yi ñu nit juum mën naa ki nga xam ne nag aussi jàpp na ne dañ koo offensé moom it mu jéggale. def naa ne imam bi présenté na ay excuse am. église bi mer na te mën nañ comprendre mer bi mais ñaan leen ñoom it ñu accepter excuse yooyu. bu ko defee ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci loolu. ne vraiment war nañu sàmm kàddu yi rafetal ko bu ko defee ni ñuy dundee ensemble suñu liñ naan notre vivre ensemble euh, continuer parce que Sénégal euh, vraiment dañu ko dañu ci naw ndax islam tolérance bi ñu ci am gis islamu yërmande bi euh, bu ko defee vraiment Sénégal cohésion sociale boobu mën a continuer mën a gën a dëgër. xëy na xanaa dañuy tàggatoo rek bu fekkee am na lu ma la fàtte woon laaj te nga bëggoon ko wax askanu euh, Sénégal. ah non non sant leen gërëm leen et puis euh, encouragé leen yéen it ci seen euh, liggéey. Mm-hmm. ci wàllu tas xibaar. Mm-hmm. xibaar nag am na solo parce que day tax nit ñi am am information. gërëm leen sant leen loolooy kàddu yi. ok kon ñu ngi koy jaajëfal mu nekkoon soxna Aminata Touré nekkoon ancienne présidente. conseil économique social environnemental nekkoon fi ministre nekkoon fi tamit premier ministre di jaajëfal ci dalal gi di leen jox digg daje beneen yoon ak yeneenu euh, kilifa. الإنس والجن رسول الله إليكم يا